dañu góor ak yàlla gu tedd gi boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi maam Khalifa ñas bëgg a jàngal rañaan gi nag boo koy mbëmbëstal ci njàngaleem lu yaatu la lu sakkan la dana laaj ñu farañ fànce ca lenn bañ a ñëw rekk jaar ci yax bi boo jëlee rañaan mooy al israa'u israa'u li muy tekki luxatan mooy dox guddi rekk waaye buñ ko waxee ci islaamu ulamaa wu sira mooy bàyyeekoo gi yonent bi bàyyeekoo makkatal mukarrama ci guddeeg ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru rajab tombeeg bisab altine tombeeg fukki at ci yonantoom gi tombeek juróom fukki at ci dundam war ci kaw daxaba ju ñuy tuddee buraax gaawaay ba muy bët ba moom de fas a ko xëpp ndax bu waroon fas dañu fone day xare ji waaye nag moo xëpp mbaam bu nekkoon mbaam dafay nekk di lu xeebu su ko defee ca loolu la war ànd ak jibril ak mikaayil ak asraayil ak israfil kenn ku ne ànd ak juróom-ñaar fukki junne malaaka ñuy escorté ko mu bàyyeekoo néeg Ummu Haani Abu Taalib ko jur Faaxitatu mooy turam yonentu bëggoon na ko soxna mu jox ko ngant benn góor a ko takk bu ñuy tuddee Jubayratu moom Ummu Haani mi ngi mujj tuub fatxu Makkata jëkkëram daw ba mujj dafa dee ci ak kéeféer moom jëkkëram ja buñ ne nag xadis ba dafa nekk umuhaani alquran ñëw na minal masjidil xaraami waaye loola lépp fa bokk ci nekk umuhaani dafa bokk ci xurum ja rek moo tax ñaari wax yi dàqante wuñ xurum ja yonent moo ko pikiteel boppam boo ko jëlee ca wàllu madinatul munawara jóge ko màkk jëm madina ñetti maayil lay doon buy ca yoonu iraq juróom-ñaari maayil la bu ca yoonu jaaraanatu juróom-ñeenti maayil la boo ko jëlee ca yoonu taayif juróom-ñaari maayil lay doon boo ko jëlee ca yoonu jidda moo ca gën a gudd fukki maayil lay doon yii la ñuy tuddee xam xamsa nga xam ne yonent bi moo ko taayin rëdd ko wane foofa lu tax ñu tuddee ko ko mooy xam nga xajarul aswad doj la wow ci aljana la baxe ko bi ñu ko indee nag installé ko ci màkka ca kaaba ga fépp fu leer ga heggoon ci juróomi côté yi foofa moo tolloog fi mii yi toll nga xam ne kenn waratul dugg màkka lu dul ngaa war a xarmal boo heggee ci juróomi miiqa yi bala ngaa dugg maanaam ca dëkk ba kon loolu mooy sabab bi su ko defee tamit bokk na ca sabab ba dañ koy tuddee masjidul haram aadama biñ ko wàccee ci kaw suuf muy jooy di sujootal yàlla lu mat ñeent fukki xat ci la ko suñ maam aadama ñëw ne ko sa boroom nangu na sag tuub mu bëgg ñu wàcceel ko baytul maamuur mu nekk wurus wu xonq bañ ko wàccee mu leeral diggante penku ak sow leer ga daq jinne yeeg seytaane yi ñu daw teqali ko di xooli leer ga ca yoonu màkka ca wàllu màkka bañ ko bëggee jege rek malaaka yi dàq leen foofa ñi taxawoon nag moom la ñu tuddee xurum ba moom lañu ñu xormaal ba nga xam ne lépp luy lu bon ak képp kuy ko bon ci diggante seytaane yi duñ ko mën a jege moo tax ñu tuddee ko xaraam kon bàyyeekoo gi yonantu bi bàyyeekoo ca place booba dem masjidul aqsa jàkka ji gën a sori xamul beneen du ko féeteeg ci gën a sori waaye moo tax ñu tuddee ko aqsa ah danaa la wax jàkka joojoog tur yu bari yim xam ak istuwaaru tabax baag fu mu jaar xam ne sëtëb yonentu yàlla Ibrahima di Yaquba tabax na ko tabaarakallaahu Omar ibnu moo ko tijji woon turam yi bokk na ci Iliya dañ ko tuddee baytul maqdis dañ koy tuddee baytul muqaddas tur yu baree bari la yoo xam ne ëpp na ñaar fukki tur ulamaawu siira indi ko loolu mooy israa muy menn tukki mu ëmb ñaari tukki bu ñu ne miraaj nag bàyyeekoo gim bàyyeekoo ci baytul maqdis traversé juróom-ñaari asamaan yi jéggi sidratul muntaha rafraf dem ba gisee boromam jullee jullee jeexe ci màkka waaye door a dem ci guddi gi ñëwaat tamit julli julleeg suba ca màkka kon moo tax loolu la ñu tuddee israawu israawu googu nag muy palaas boobu yonantoo fa mos a dem kenn mosu faa dem ci yonantu yi ak ni ko defee doonte yonantu yi kenn ku ne rañaan nga ndax rañaan mooy firi dox guddi rek yonantu yàlla luut ñu borom waxoon na ko rañaanil fasri li ko bi qitin min al layli ibrahima rañaan na inni zahibun ila rabbi sayahdini waaye ni yonent bi rañaanee defee ko ñax la ko kenn mosta defee moo tax maam xalifa góor ak yàlla gane suma usriya topp rañaaneef na bi ci yonent bi ilaa maw di xeen jëmee ko ci barab lam takku nekkut anbiyaaw yonent yi min qabli ci njëkkam fii ca barab ba kenn mosu faa dem ku dut moom kañ la mu ne xaama xubbin xatam fukk mi na nubuwati ca nubuwa ga bi ma xamee fukki xat ca nubuwaam nga ci la lii xew fii kës yi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab kama ataakum naka la ko dikkulee an baawu solo yi ba muy dem comme ànd ak mu ne raafaqa àndoona Moustapha kuñ tànn ka amina kuñ xule ko sihaban ci dem jabraila luxa la ci am na fukki luxa ak ñaar noonu lañ koy limee ba mat fukki lu ak ñaar maam xalifa benn bala jël jabra iilu hum ñoom hum ñoom rufaqaawu ñooy sett ya ñooy àndandoor yi nga xam ne duñ teqalikoo mukk foo gis jibril gis yonantu bi foo gis yonantu bi gis jibril ñëwal na ko ci dundam ñaar fukki junne yoon ak ñaar juróom benn loola ku ku la ko ñëwal ci ñaar fukki at ak ñett yaag moom yéen a dëkk kon nag loolu mooy histoire rañaan gi maam xalifa nettali ko ne war a xaay yéeg na bil buraaqi ci daxa bëgg fi yee buraaq yàq saana ci xeewu falaa bëgg a wax na jëmm ja ak rooxu ga yépp a dem ndax buraaq daaba la daaba rooxu ja kese du ca yëg te yàlla dafa tamit bi abdi baatab abdu araab du ko wax lu dul jëm ak rooxu laylan ci lenn ci guddi bu ne woon layla muy guddi gi yépp waaye yàlla dafa ne subhaana la si asra bi abdi laylan muy xaaj ci guddi wala hoo aji nekk la ñaal ko moom buraax rutubatun daraja aliyaaw bu kawe bi ci sababu rañaan gi yonent bi rañaanee ci moom wala hoo aji nekk la ñaal yonent bi rutubatun daraja tamit bu kawe bi gi nga xamee ne xamee na ko ci sababu rañaan gi kon loolu mooy rañaan gi moom la maam xalifa tënk ci juróomi abiyaat yooyu boo ko doon farañ fànce nag rañaan gi laata muy xew dafa am lu xew guddi gi yonent bi war a départ war a dimaas ba dimanche bër altine la jibril la ñëw fekk ko néeg ummu haani gannaaw bi mu jullee ñaari rakkaa yim daan julli guddi tëdd xaw mel ni lu këf nelaw mu ne mu xam lu mu yëg lu jaar ci par ci toiture néeg bi wàcc ba mu ñëwee ne ko mën a jibril sama borom moo ma digal ne la naa la ko yóbbul ci la ko indil ab kastiloor bu mu def lam def xotti dënn ba raxasaat xol ba muy juróomeeli yoon wala ñeenteelu yoon bi tax mu man a àttan leer yi xotti woon nañ ko ba muy nàmp ci xalimatu saadiya xottiwaat ko mu amee fukki at xottiwaat ko bañ koy yónni ñu ngi koy xottiwaat nii nag ba mu amee juróom fukki at sama borom war koo rañaani pour mu àttan leer ga moo tax maam xalifa ne suqa sadru nabi arbaa maratin bii mooy ñeenteelu yoon bi léegi nag jibril ñëwal na ko xotti nañ dënn ba raxas nañ ko def nañ ca lañ ca def ci ay xam-xamu xikma daaba ja taxaw na ca kawam kanamam jibril héegal na ko ca boroom xam-xam yi werante ndax dañoo toggoo ñu ne li gën a wér toggoo huñu ngir xormaal yonent bi dañ koo escorté rek juróom-ñaar fukki junne ci ndeyjoor ci càmmooy ci kanam ci gannaaw ñi ànd ak jibril ñi mikaayil ñi israfil ñi asrail départ nañ xam nañ ay escale yu ñu romb romb na ca beeñ ba fu ñu tuddee baytu laxmin fa la yonantu yàlla Isa juddoo yonantu bi ne ko wàccal nga julli fii yonontu bi wàcc fa julli fa ñaari rakkaa romb nañ yana wàcc na fa tamit julli fa romb nañ escale ci euh, palaasu yonentu yàlla Muusaa ba mu wàcc fa julli fa lu ca xam dem nañ ba ci yoon mu xam jëmm ju koy woo ndeke seytaane la yonentu bi gestu jibril ne ko kii ifrit la minal jinni kaay ma wax la ay baat yoo xam ne boo ko waxee du la mënal dara allah uallimuka kalimatin taquluhunna ida anta qultahunna boo ko waxee rek leeram gile di xuy-xuy dana mujj fay bu ne ko lan la mu ne ko waxal audu bi wajhillahi alkarim wa bi kalimatillahi tammati llaati laa yujaawisuhunna barrun wala fajirun min charri ma yanzilu min alsamaai wa min charri ma yaruju fiha wa min charri ma zaraa fi l ardi wa min charri ma yaxruju minha wa min fitani leyli wan nahaari wa min tawaariqi leyli wan nahaari illaa taariqan yatruqu bi xayrin yaa raxmaanu ba ko yonent bi waxee rekk mu këpp ku yëg leeram googa mujj fay yonent bi ak jibril dem nañ ñu romb ay nit ñuy bay buñ bayee rekk ci saasa mu ñor ñi góob yonent bi mu laaj jibril ñi ñan la mu ne ko mooy ñi doon jihaat ci yoonu yàlla yàlla leen i way seen payoor gi ni muy mel ëllëg ni muy ni ko yàlla di fule ci lu mat juróom-ñaar téeméeri ful luñ dundale rek xalaa ku lixal yàlla fulal leen ko moo xam ñuy jihaat ci jaasi mbaa ñuy jihaat ci seen alal jàngal ko laaya ja masalu lasina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabatin nambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba demaat nañ ba ci yoon tabaarakallaahu ñi romb menn màggat mu koy woo yonent bi huyuwut ko jibril ne ko kii mooy woote jëmee ci diine yëhoot boo ko huyoon rek sa xeet wi yëpp nekk ay yëhoot mu rombaat ko mu ne ko kii mooy woote jëmee ci nasaraan diine nasaraan soo ko huyoon rek sa xeet wi yëpp soppee ko ay nasaraan su ko defee nag yii ay miracle la yoo xam ne romb nañ ko rombaat nañ koy xoote yonantu bi ko yëwut ko mu ne ko àdduna la ku ko wan gannaaw wan ko dëdd ko mu liggéeyal la ku ko liggéeyal mu sonal la soo ko xuyu woon sa xeet wi tànn àdduna bàyyi fi àlla xiraati kon ñi perte kon yi la yëpp ay miracle la yonantu bi romb romb na ñi nga xam ne dañuy nangu di dañuy di ñu xoote ak responsabilité te duñ ko nangoo xenu su ko defee muy ay amaanaat te duñ ko joxe mukk ngay taxaan rek di xenu xattan nuñ ko tañ ngay cay dolli ñooñu la yonent bi ne mooy te ko doon waawaat baat yi commencé ci waaw yëpp ay dansé la muy walaayatuuk wasaaratuuk wisaay wisaayatu wa maanaam ak wikaalatu wadiatu yooyu yëpp ay baatu dance la yoo xam ne ci waaw lañ dàmbali doomu aadama yi bëgg ko lool mu ne dee leen ko daw ku ci bëgg a mucc romb na tabaarakallaahu ay nit ñu ñuy mbugal di di lakk seen awra ya ci ay bettax mu laaj ko jële mu ne ko ñooy njaalokat yi ci sa xeet bi romb na ñi nga xam ne seen biir ya dafa leen a buñ duggoo rek mu daane leen mu ne ko ñu ñooy lekk katari bàyyi ci sa xeet bi moom daal mbooleem xeet loo xam ne bu ko nit defee mbugal daanu ki sa kaw rek lu mel noona yonantu bi yàlla won na ko photo ya ci àdduna mu gis loola su ko defee kon yooyu yëpp tamit mu koy jàngal xeetam wi te lii lépp ci yoon wi la ko gisee njëkk muy hegg ca baytil maqdis léegi nag hegg na ci buraax romb na miracle yooyu yi ma la ci mën a tuddal ak yu ma la mënta tuddal ba mu yeggee yonent bi wàcc jibril xeewal ko daxaba ja ca wetu baytul maqdis mu yee mu ne ko fii mooy xeewukaay yi sa morom yi yonent yi fi lañ daan xeew seen daxaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc fekk na booba yonent yépp ñi ngi yàlla dekki na seen jëmm ya ñu nekk ci biir baytul maqdis di ko xaar di ko tertu ba mu ñëwee mu jiite leen ñaari rakkaa juróom-ñaari sàppe lañ defoon ñu ñu yónni wul ña ñeent ñu ñu yónni ña ñett ba ñu paree rek yàggul dara yonentu yàlla Muusaa ni ko xanaa lu néew néew nag nga waar ñu ay baat ci la yonentu bi ne leen xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam sa man mii maay ki gën ci sama njaboot ndax nit doo ko wax ne ko dama laa gën waaye dañ koy wan ne ko dama laa gën lii la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jiite leen ñaari rakkaa départ na nag war a def mi'raaj boo ko jëlee baytul maqadis boo gisee mu héegee fa da doon séexale ñaari jàkka yi te foofa tamit mooy place bi gën a jege asamaan ci kaw suuf gën na koo jege lu mat fukki maayil ak juróom-ñaar ba juróom-ñett looloo tax mu yéegee foofa boo demee ba ca yaa ngi ko jox xubbatul mi'raaj yonentu yéegee fa place bam mu jaaroon ba tey boo fa demee ñi wan la ko su ko defee nag gannaaw bi nga xamee na ni def na mihraaj jaar fam jaar yàlla teralee na ko ay yonantu yum romb ci asamaan ñoom ñooña ñëpp ñu ngi koy tertu kum ca jaar am na lu wax ak yow bàyyee la ko door a jaar ci sa morom mbooleem yonantu yi nga xamee na ni romb na leen maam Khalifa Niass góor ak yàlla gu tedd gii limal nañu leen moom lay wax ne waraqaay yéeg na bil buraaq yaqzaana laylan wala rutbatun bi aliyaaw mu commencé nag isra ba jeex muy wax miraaj ba miraaj ba mooy mu ne wa ida staftaha bu sàkkoo hubbilu al aminu kuñ hóolu ki samaan asamaan raxaba tatagal bii ci ma anbiyaawu yonantu yi maawu ànd ak jibril maawu mbir mu muy ànd ak jibril fa wax ne moog jibril ñi ngay ànd asamaan fuñ dem jibril fëgg kooku kan la mën a jibril koo ànd ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónni nañ koo mu ne waaw ñu ne ko marhaban nixmal ma ji u jaa ki ga dikk ki ñu indi de ku baax la na xegsi asamaan su njëkk sa maam xalifa ni watalaqaahu daje na faak moom aadamu muy bu njëkk ba bu ñaareel ba mu ne suma Iisaa bu ñetteel ba suma nooxun ñeenteel ba wa yuusufu ñoom ñëpp asfiyaaw ñu sell lañ juróomeel ba suma haarunu juróom benneel ba suma muusaa juróom ñaareel ba wa ibrahimu wa moom xaliilu mooy xarit ba neex ma baax na liqaaw dajeega juróom-ñaari asamaan yaa ak juróom-ñaari yonantu yam fa romb yonantu bu ne sa am lu yonantu bi niroog yow moo tax mu fekk la ci asamaan sam la fekk kum xam loo xam ne sa dund bi am na lum niroog dund ak yonantu bi rek fokk yonantu bi dana la romb ci asamaan niroohaale googa moo ko waral boo seetee ki mu njëkk a romb mooy Adama ci première asamaan Adama première dundam dafa niroog dund yonantu bi mu jëg dundam dafa niroog mu jëg yonantu bi ci dundam bul fàtte ne Adama njëlbeenu dundam dafa nekkoon ci kër goo xam ne lépp a ko war dara waru ko gannaaw si gi dara warut ko muy aljaana ji tekki ay jeex na dugg na fa mosta julli musul woor musul joxe asaka musul jokk bokk jàngul alquran nit nag lu lu ko lu ko yomb rekk du ko fonk looloo waral iblis fekk ko fanaan ko hal adulluka ala sigratil mu koy topp ca ci dogalab yàlla ba loola sabab ak génnam yàlla ne ko kër gi nga duggoon lépp wër la te dara warul la nga war lépp te dara warul la julliwoo ba tax nga ñëw fi wóoroo joxe woo asaka tey bala nga fee duggati génnee naa la fi de ba mu génnee nag yàlla ne ko bala nga fee duggaat da nga julli bay bëgg a dee xoor bay bëgg a dee xaj màkk bay bëgg a dee jokk bokk joxe asaka def lu nekk ci lu xeetu baax léegi nag kër ak njëlbeenam googa ci jàmm ci xéewal ci teraanga ci sécurité waaye gis nga kër ak mu jëm ji di àdduna kër gu soof gi nga xam ne lépp a ko wër waaye lépp a ko war moo tax it coono booba mu niroog yonantu bi ci njëlbeen niroog moom ci mujj moo waral yonantu bi fekk ko ca asamaan su njëkk bul fàtti na yonantu bi njëlbeenam fa niroog njëlbeenu aadama suñu maam njëlbeenu yonent bi dafa duggoon dafa dëkkoon ci kër jàmm kër ak sécurité kër kër goo xam ne ay bokkam ay maamam ako sanc lépp waru ko te dara waru ko ba ñu mujj sax kër ga sécurité gaa tax sax ay rabam duñ leen rey kër goo xam ne yàllaa ne li ilaafi qurayshin ilaafihim rixlata alchitaai wa sayf falyacbudu rabba hada al beyt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawf kon kër ak sécurité la kër ak la waaye gis nga ko ba mu amee juróom fukki ñett ñi xëy xajatul ca kër ga ñi génnee ko tër lu ko lu ma téeméeri nit def benn kongara ca daaru wa fexeel lu koy rey sànq ba kanam ba yàlla musal ko ñi teg téeméeri gëléem ko indi ba kanam bi moo xam day dund moo xam dafa génn àdduna mbaa ba kanam abubakar ba la ko dogale ca yoon waa ak la ca xaju lépp danañ ca ñëw mu nekk kër ak mu génn ci kër ak jàmm kër ak sécurité googa nag dem dëkk ak ay yahut ña fexeel nañ ko bëgg koo rey yàlla musal ko xare yam fa takk ak yongaan yañ ko def ak yépp niroo naag aadama ci mujj ci kër gi mu ñëwoon di kër ak àdduna niroo naag kër ak yonantu ba fële ca Madina coono yu yam fa dëkk looloo waral mu fekk ko ci alja asamaan su njëkk ñaareel bi mu ngi fekk yonentu yàlla Iisaa ci mu ànd ak Idrisa mi ngi ànd ak ko yonentu yonentu yàlla ak Yaxya doomu ndeyam ndeysaanam mu ngi leen fekk ci asamaanu ñaareel boo ko seetee yonentu yàlla Iisaa dafa niroog yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama marxalatu saaniya looloo waral mu fekk mu fekk ci asamaanu ñaareel bul fàtte ne yonent mile marxalatu saaniyaam mooy yahuud yi dañ koo bëggoon a rey fexeel nañ ko tëralal ko ab kuu boo xam ne bu ko yàlla musalutoon ci lay bakkanam di xem ba yàlla dogal na yàlla solal mbubbam ci ki jiite woon bëgg a ray ga ba yàlla ne wama qataluuhu wama salabuuhu walakin subbiha lahum niroo googu kon ñaareelam bi nu état noonu mu mel fa mujj ba ne ba rafaahu laahu ilayhi fa niroog yonantu bi tamit marxalatu saaniyaam ca madinatul munawara yahood ya xittewoon nañ bëgg koo rey ba benn bis mu toog ci suuf am ku héeg ci état su yooyu bëgg a wàccee benn bolok ci kaw yonantu bi yàlla wan ko ko ne ko xoolal li ma la fegal tey bul fàtte ne benn bis tamit ci benn xare bu ngi tuddee saatu imrin demoon na di sangu ci ab taw xaw dànd ay saxaabaam xawra su fekk ko fa ak jaasi ja bocc ko ci kanamam ne ko ku tere tey ma mën a faat sa bakkan mu ne ko yàlla muy karkar yi di lox ba jaasi ja rëcc ko bi jël ko ne ku tere ma ma faat sa bakkan mu ne ko sag mbaax te nga gën ma rek yonent bi ne ko doxal nga dem niroo googu mu niroog yonentu yàlla saa ci marxalatu saaniya ak yonentu yàlla Yaxya bi nga xam ne sax yahuud yee mujj ray ko te yonentu bi tamit boo ko seetee dafa dafa shahid ndax ci tooke goo xam ne nii jox nañ ko ko mu lekk ko ci xaybar ba daana wax ne lekk ak xaybar gi dërut di hunneeku ba mu gën a dagg sama euh, siddi ci yi kon niroo naag Yaxya ci rey giñ ko rey niroog naag Isa ci bëgg giñ ko bëggoon a rey yàlla musal ko ca looloo waral mu fekk leen ñoom ñaar ci asamaanu ñaareel gis nga ko timit wax naa la ko asamaanu ñetteel dem nañu xubbi nañ jibril fëgg kanama a jibril koo ànd ak yonantu bi yónni nañ ko mu ne waaw ñi fekk fa yonantu yàlla yuusufa ànd naag kuréel ca nitam ña ku rafet la dañ koo joxoon genn wàllu taaru mbindéef ya waaye taar ba àndutoon ak wegeel moo tax jigéen di ko sàkku yonent bi nag taaram ba fa ànd ak wegeel ku ko gis yaa ngi tiit ba nooy def ba mën a rëcc ci moom fa niroog yonentu yàlla yuusufa ci dudd yonentu yàlla yuusufa marxalatu saalisaam bul fàtte ne doomu baayam ya loon nañ ko bëgg koo rey ba sànni ko ci kàmbu foog ne dee na yàlla musal ko ca ñu jël ko jaay ko jaam yàlla musal ko yéege ko ba mu xëy nekk président wu Égypte ñoom ñu néew doole di sàkku ci njëg ba fekk ko fa mu xàmmee leen te xamuñu ko mu teral leen feeñu leen ne maay seen mbokk ma Yuusufa ñoom ñëpp ñu réccu liñ ko defoon mu ne leen tey duhut bi sa fàttaliku lu baax lu bon li passé passé na seytaane ko doxoon ne qaala laa tasriba aleykumul yawma yaxfirulaahu lakum niroo naag yonantu bi mbokkam yi ñoo ko génne woon màkka sosal ko yàq deram lu bon lu dañu teg ko ci kawam teg ko ci deri saabaam yi ba xajatul te dëkk ba mu génn waaye mu jëm rek am na doole joo xam ne mënuñ koo dékkoti fukki junne soldaar ak ñaar ñu def fatxu màkkata ñoom ñépp mujj sukk ci kanamam tiit nañ taxaw nag mu ne tey lu ngeen foog ne moom laa leen di def ñu ne ko yow de mbokk mu baax nga di doomi mbokk mu baax mu wax leen la yuusufa mim nu réwoon ak wax aqulu maa qaala axi yuusuf laa tasriba aleykumul yawma niroo googu ñu niroo nuñ mel ci seen nit ña ak lañ wax looloo waral mu fekk yoon yonentu yàlla yuusufa ca asamaanu ñetteel continué nañ asamaanu ñeenteel jibril fa gën a kooka kan la mën a jibril koo ànd ak sayduna muhammad yónni nañ ko waaw ñu fekk fa yonentu yàlla idrisa mu tatagal ko idrisa mile fa niroog yonentu yàlla muhammad ci dund bul fàtte ne moom la yàlla yëkkati woon dara jaam ja yéege ko ci asamaan ba ne war a faxnaahu makaanan aliyan loolu maqaama bu kawe la yonentu bi tamit yàlla yëkkati na maqaamam bu kawe mu toog ma dinatul madinatul a di bind lu buur yi bind lu buuru Égypte bi bind lu muy ma maanaam mu xawqis yónnee leetar la yónnee leetar mbooleem fu buur ya nekk ñu ngay tiit di karkar yi ñenn ña tuub ñenn ña yónnee ko ay kado yu dul jeex ñenn ña yónnee ko ay kàddu mujj siñ ak moom ay pat kon kii yàlla yëkkati na dara jaam Idrissa mooy ki njëkk bind ci xalimba ma ma yàlla joxoon ko xam-xam bu rëy déggoon na lu mat juróom-ñaar fukki làng ak ñaar kon niroo naag yonantu bi nga xam ne yàlla dégg na lu na ko mbooleem làng wu ñuy làng ci kaw suuf dégg na xolof dégg séeréer dégg maa njaago dafa daan wax ne yàlla jox na ma xam-xam woy njëkk ak woy mujj yoon nag làng ya ca la bokk kon nag moom bindut ci xalima waaye bind nañ bind lu nañ ci xalima yónnee leetar ya buur ya buur yay karkar yi di lox ngir ak ngelaw ak ndimbalam loolu nga xam ne doxu weer la ñii tuub dugg ci diina ji ñenn ña signé moom ay ay patt defal ko ay teraanga yoo xam ne kenn mësu koo dégg niroo googaa tax mu fekk yonent yàlla Idrissa ci asamaanu ñeenteel continué nañ ña nga jëm ci asamaanu juróomeel jibril xegg na fa fëgg na kooka kan la mën a jibril jibril yow koo ànd mu ne ko sayiduna muhammad yónni nañ ko mu ne waaw mu ne kon nag yegsil ki di ka baax ni'mal maji u jaa yonentu bi yegsi na ñu fekk fa haaruna yonentu bi nee na genn wàllu kawaru sikkiñam dafa weex taal genn wàll ga ñuul sikkiñ baa nga daanu ba tegu ci jumbaxam bi aw nitam ko wër ci banu Israil mi ngi leen di xisaal yonentu bi yegg na fa niroog yonentu yàlla Haaruna Haaruna ku nitam ñi bëggoon lañ moom lañ gënoon a bëgg ci Muusa ndax ku nooy la woon ñu sopp ko lool ba mu jéggi dayo waaye gis nga ko yonentu bi tamit nitam ñi dañ koo soppoon bëgg ko bëgg goo xam ne jéggoon na dayo bu taflee ñu njëkkalante ko bu jàppee ñi jël ndox man naan ko bu watoo ñi jël kawari boppam ba di ko njëkkalante ka barkeelu kon bëgg googu ñi bëggoon ko gannaaw bañ ko bañee woon looloo taxal cofeel googu mu niralu ko Haaruna tax mu fekk Haaruna ki juróomeeli asamaan continué na jëm ci juróom-benneeli asamaan juróomeeli asa dégg nga na ña fay fekk yonentu yàlla Eh, Haaruna eh, yonent yàlla Moussa kon juróom-benneeli asamaan ba ñu ñëwee Jibril fëgg kanaa mën a Jibril ko ànd ak yonent bi ndax yoon yónni nañ ko mu ne ko waaw mu ne ni'mal ma ji u jaa ki di ka baax na yegsi yegsi na ñëw na tatagal na ko ndeysaanam wax naag moom Ah, boo gisee nag mu fekk ko xaalu muusa xaalatu Moussa dafa niroog xaalatu yonentu yàlla Muhammad bul fàtte ne muusa mii moo doon xeex ak jabaabirata ya ca Saam génnee ña ko dëkkee woon amaliqiina ya kàccoor ya dugal fa banu Israil loolu Moussa ko defoon naka noonu tamit yonentu bii ay saabaam ànd naag ñoom ñu dem tëbu xeexi fa fa yonentu yàlla Muusaa xeexee woon sorewut muy ca saam moom tamit tabaarakallaahu ba ca dawmatu jandal ñoom ñooñu ñu mujj xéwénoog moom sadd galak mu jàpp ke ñam ca jàpp eh, ay jar-jar waaye moom mii tamit moo hubbilu màkka nitam ñii ñu génnewoon fa mu dugalaat leen fa ñu am sécurité am jàmm niroo googu mu niroo Moussa ci wàllu xaswa looloo waral mu fekk yonentu yàlla Moussa ci asamaanu juróom-benneel juróom-ñaareel ba départ nañ Jibril fa gën a kana mën a Jibril ko ànd ak yonent bi yónni nañ ko waaw yegsil tatagal na ko fekk na fa baayam bu tedd ba yonentu yàlla Ibrahim Ibrahim nekkoon góor goo xam ne dafa jaaxaak kawaru bopp ba dafa am ay béjjaaw mu fekk ko foofa mbooleem arwaaxi anbiyaaw yi ñi ngi ci kanamam bu ko defee ba mu may rooxu yonentu yàlla Isaa ga ma nga jàkkaarloog moom nekk na ci wàllam buntab aljana mu nekk ca kawam juróom-ñaareeli asamaan ma nga jël gannaawam ga wér ko ca baytil maamuur mooy Kaaba ak malaaka yi yonent bi laa gënoon Jibril file mu ne ko bët bu set juróom-ñaar fukki junne malaaka danañ fi xaj si dugg te malaaka mu dugg dootoo génnati kon dëgg-dëgg wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa malaaka yàlla yi daal seen lim yàlla rekk moo leen xam mu fekk ko foofa de su ko defee tamit euh, moom lay wax mu ne mu dajeek yonentu yàlla Ibrahima foofa dafa niroog moom bul fàtte ne yonentu yàlla Ibrahima mile moo tabax Kaaba ga yëkkati fondation ya gannaaw tuufaan sama borom jox ko ndigal ne ko hooteel sama jaami ñu xuy si sama ñi xaj sama néebi ci ci wa adin fi naasi bil yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq waaye nag xoote booba yonent bi moo ko xuuy si dundal ko nit ñay xaj si ci dundam kaaba gi tabaarakallaahu mbooloo mu bari tamit xaji ko gannaawam moo xam ne kenn xamut nu ñu toll kon niroo googa ñu niroo ci kii tabax kii xuuy si dëggal xoote ba moo tax mu fekk ko foofa ca juróom-ñaareeli asamaan li gën a wér nag ci hadis yi mooy jibril foofa ñuy xeew ko ca baytil maqdis fa la toogaat ba yonent bi fekk si ko waaye xéegut ak moom nag jëm asamaan am na riwaaya yuy tegtale yooyu tamit yoo xam ne dafay wax directement rek maag jibril ba ci sidratul muntaha demeet waaye am na hadis yoo xam ne dafay wane rek jibril la war rek ba ci baytil maqdis waaye daal li gën a bëri ci ulama wax hadis liñ na liñ tànn mooy hadis yi tekki ne jibril foofu la xem li ñuy tuddee miraaj muy yéeguwaay ab jullit bu demee bay dee moom lañ koy wan ci la palaawu aljana nekk ak palaawu safara bu koy xool nag këram nga ci aljana dafay rafet mu buqi bët yi ba buñ buccee rooxu ga du ko yëg yàlla nañu ko yàlla wan moo tax bët yi sax dafay buqeeku moo tax ñi bëgg bu génnee àdduna ñu koy sëlam loolu ci la yonantu bi yéeg traverse juróom-ñaari asamaan yi le dem ba sidratul muntaha jibril daytal ne ko fii laa mën xem wa ma minna illa lahu maqaamun maalum mu ne ko yaatalee ba àndandoor jëlee ko Makka jaar ak fi nga jaar moom baytul maqdis juróom-ñaari asamaan yi ba fire mu ne ko suma jéggee fii rek leer ak aras lakk ma comme ni safara di lakkee njarweñ fii daal waa kaw musuñ ko traversé jëm suuf waa suuf mu musuñ ko traversé jëm kaw ci la dégg kàddug Aboubacar kàddug Omar mu ne sama gaa yi kañ lañ ma romb bay dem ñu ne ko mënuñu wax si fii de yàlla la ko teralee rek pour bëgg fi nga jëm sa xel gën a mën a dal mu ne baytil maa ngi gis sidratul muntaa xob ya ca sax mi ngi mel ni ay noppi ñay dafa wërngalu nag yaatul lool taaru meññatam ya mi ngi mel ni meññati ay siddéem su ko defee tamit nag yonent bi nag yéeg na ca départ na paase na ko paase na raf dem naa dem a dem ba féetee kaw kaw bu doon sama borom di xam buntu dem na ba jub ko ñu ne ko sa borom a ngi julli mu ngi dégg mu ne yàllaa ngi wax subhaani maa azama sha'ni di màggal boppam ñu ne nag yonantu bi xotti lu mat juróomi téeméeri kiiraay wala juróom-ñaar fukki junney kiiraay ak juróomi téeméer kiiraay bu ci nekk xam na ni diggante asamaan ak suuf doxab juróomi téeméeri xat la départ na ca dem naa dem a dem a dem ba giseeg boromam ibnu abbas loolu la wax gis na yàlla yàq sa tan laa mën a man mu teralee ko ñetti ndab lañ ko indil benn bi sàngara la comme ku seeti gan koo gane ji mu tëral ay boisson bi coca la bi fanta la bi yeneen la yonentu bi tànn soow ma mu ne ko est-ce tànn nga sa bindaw xeet wi boo naanoon sàngara sa xeet wi bew boo naanoon ndox mi sa nit ñi lab waaye nag lii mooy fitrata ummatika moom nga tànn ixtarta fitrata ummatika yonentu bi naan ko sama borom yëkkati juróom fukki julli jox ko ko mu ñëw ba ci juróom benneeli asamaan waaye boo commencé ci kaw ñaareel lay doon fekk fa yonentu yàlla Muusa mu laaj ko lu sa borom farataal ci yow wax na ko ko mu ne ko sa xeet wi àttanuñ ko sama xeet wi leen doole ñaari julli sax suba ñaari rakkaa ba ngoon dafa tëwoon demal nga wàññilu boobu moom mi ngi bànneexu rek donte moom gisul yàlla waaye bëgg naa gis ku gis yàlla muy baat neexu muy dem muy wàññilu par juróom muy wàññilu ba mu des juróom mu ne ko demal yonent bi ne ko xeres naa kuñ joxoon juróom fukk di la wàññi ba mu mat des juróom ngay wàññilootu ñoom ñaar ñëpp ñu dégg kàddu yàlla mu ne am daytu faridati wa xafaftu an ibaadi wa hiya xamsun waaye wa hiya xamsuna ndax maa yu baddalu xawlu la daya moo tax kon coono ba rek lañu wàññi ku julli julli julleem fukk yi ñu fay la yoolab ku julli juróomi julli ñu fay la yoolab juróom fukki julli jox nañ ko ko yonentu bi ñibb si na ci bis bi ci même guddi gi am yag see nag ah bër set manta nëbbu xéewal ak yàlla mu xëyoo mbokk ya sama boroom defal na ma xéewal ca gaara place ba laay dem waxi ko ñu ne ko loolu xëpp naa wax de mu ne mënuma koo xaar dem na dagale leen demoon naa baytil maqdis rek la wax te booba ñoom doxab weer dem gi doxab weer ñibb ñu ne ko ci genn guddi mu ne ah kay fii la ma géeyee fekk te fi laa jullee fajar gaawaay ba daal mi ngi mel ni ab lal boo ca tëddoon nga jóg yëngatu googa balaa dal yonent bi dem na ñëw na ndax yàlla moom foofa espace amut fa temps fa su ko defee ñëw na nag ñooña gëmuñu ko ña ngi koy cuqi cuqi man romb naa seen njëgg mi xam na ki ñoo xam ne sax seen soow ma naan naa ca sama daxa ba gi tiital na leen maa ngi leen di xibaar ne bu àllarba ci ngoon bu jant bi sox dana tombeek ñoom ñuy ñëw ñu ne loolu yàggut nañ ko xaar waaye ba jant bi so rek tombeek njëgg may ñëw nam leen ko waxee woon tereewu ñu ne lii daal njabar rek la ñu ne ko ndax yow lii nga wax bu ñu dajalee waa màkk mu ne bu ñëpp dajee gaa yi dem ci Aboubacar ne ko li ngay mën a mën a dëggal xanaa sa waa jii wax jii mu wax tey doo ko ñemee mu ne lan la mu ne nee na dem na baytul maqdis mu ne yéen a ñàkk fayda kii di ma indil ay xibaar yu bàyyee ko ci asamaan ma koy dëggal bu ne woon dem na ci asamaan sax ma gëm ko mu ne mu ngoog Aboubacar yaa xam mbir yi foofa laa demoon waaye dama doon wax ak ñoom li tolloog seen xel rek. yooya yëpp indi na ko indi juróom fukki julli wax leen njëgg ma terewut ñoom gëmuñu ko yonent bi nag rañaan boo ko seetee def na ko fanweer yoon ak ñeent benn yoon bi rek la mos la la jëmmu jaag rooxu yoon yi ak ñett yëpp rooxu ga rek a dem waaye jëmmu ja demut loolu lay maam xalifay mottali di wax si nii mu ne gannaaw yonent ya suma saara topp dox nañ moo jibril fa waafa yaa dikkal nañ sidrata déem ga alxaraba ji aji siiw mooy sidratul muntaha waxiya moom lëtt yi mooy garab ak déem ga nga xam ne intihaawu daytal ba ilayha hem na ca moom dara musu ko traversé jëm kaw bàyyeekoo suuf dara musu ko traversé bàyyeekoo kaw jëm suuf moo tax fan bañ fa xeggee rek fan taxaa daytalu na jibrilu al aminu kuñ xóolu ko ilayha ca garab ga muy garab ak déem nga musratul muntaha maam xalifa ne wali taaha aji nekk la ñeel taaha bu la neexee ngay wax ne wakkaana amee na irtiqaawu yégg li taaha ñeel yonantu bi min baadihi gannaaw daytal ak jibril yonantu bi yéeg ba féetee kaw kaw dem na sax ba ba gis na mawlaahu boromam karima bu tedd ba ayaanan ci janoo xat xakkaa nettali na zaali fi siirata ci siira xudamaa wooy jiitu ñi dañu ko jiitale ñu ko nettali ibnu abbas te la bokk ci hadis bu wér aysatu moom dafa ko dàq waaye jamono ji yonantu bi di rañaan nii aysatu xale la boo xamee na nii daanaka man ngay wax ne ay xatam yeggutoon ci fu ñuy mën a dëgëraloo ay waxam moo tax suñ mag ñi waxi ibnu abbas bi lañu tànn moo tax mu ne wa araahu wan na ko mawlaahu boromam aayatahu kaawteefam ya kubraa yu màgg ya kubraa ya gën a màgg wasul faa am nag jege was daara dolleeku na alaawu xéewal ya yàlla wan na ko ak jege ci boppam wan na ko kaawteef yu màgg su ko defee nag aw dax dénk na laahu yàlla sadarahu dënnam ba min ulumin ci xam-xam wa min asaari xikmatin ak ci sekkare eh, xam-xamu njariñ maa yasaaw la ko soob loola nag làmmeñ lott na ci mën a tudd loola ni mën a mel su ko defee nag yonent bi nii la def rañaan na waaye nag du rek de mu ne wala aji nekk la ñeel ko israa ak rañaan ay det ba tey fi manaami ci nelaw xayra haasa gudul gile kilaahuma ku mu si ñoom ñaar muy gu nelaw gaag gu jëmmu jaag yëpp dem ñoom ñëpp israa ak rañaan la furidat farataalif na fii si layta gëla guddi xam sa juróomi julli was daada dolleeku na bi mabha ci taaramba al millatu yoon wa garraawu bay aji siiw yin li diina lislaam yokku na ci taar ndax diina ju xamul julli du ànd ak taar waaye ba xamee julli ci la gën a taaru nag wa awaanun ay ndab salaasatu day ñett kat atatu dikkal na ko ñi ni teralee ko ko ku seeti sa gan bu ma nee gan rek dana la teral ñu ne nag Buxaari yu moo indi hadis bi yonentu bi ne indil nañ ma ñetti ndab benn bi di sàngara benn bi di soow bu ko defee nag ñu ne ko law axastal xamra xawat ummatuka bay xaq yu mu ne dañ ne ko law saribtal maa xarat ummatuka waaye nag mu mujj tànn laban ba moo tax maam xalifa ne benn ba labanul sow la xaalisun mu sell woo ne xoojuñ koog dara wa xamrun benn ba sàngara la benn ba wa maa u ndox la waaye wa qad ixtaara tànn na fitrata diine bindab diine ba lama sariba ba naanee ris la soow ma hakata naka ni aliya wa ak kawe nii la ko la yàlla defalee su ma waafaa topp dikk na waaye nag yu xaddisu mbir moom mi ngay waxtaane naa sa nit ñi sukkuran ngir sant yàlla ci xéewal gu rëy gi ko yàlla defal waaye nag bi ajibin ci lu kéemaanu lim am waaye axbiyaaw dof ya wa saddaqa dëggal na la ñeel ko xatiiqoo Seydina Aboubacar moo tax it ah wa doxee xooxeef na bi siddiq ci dëggalaa kon ba min ha ci sababu dëggal googa wa neex ma baax na diaaw tur wi ñu xooyee ko wa bairun ay gëléem li qawmin ñeel nit ña muy xéeféer ya na aydan ba tey ne leen dana ñëw xalarba xawlahoo xiw nekk na fa xiwam xawmu nitam ña wuhum ñoom ruqabaaw ña ngi koy fuuglu naan ndax dana xeg si iri bi mu waxoon xamoon nañ empêchement sax waaye yàlla téel na ko jant bi ba bay jant bi di so ànd ak ñoom ñuy dugg si waaye nag ñi weddi ko ne njabar la yonentu bi sax fa gannaaw bi mu defee israawu gile sax na màkk ñetti xat di julli leen xoo ci wetal yàlla ñi bañ moo tax mu ne wa daawam xoo na leen lal ilaay jëmee ci yàlla salaata ñetti xat ma asrin ànd ak fukk muy fukki xat ak ñett wa aradna ashqiyaaw yu texe di ña gannaaw bi mu defee israawu ñetti xat rek la fa saxaat njëkk israaw ga saxoon na ci lu mat ah, fukki xat di xoote waaye taxul ñu gëm ko kon israawu guddi la ñu ne lu taa yàlla def ko bëccëg mu ne fàng ne dàng ne ràññi ba kenn du ko weddeeti ruuxul bayaan ne bu doon bëccëg dëggal ko ndam du ca neexati dëggal lu dëggu ndam newu ca weddi ko tamit gàcce ju ca neexati ndax weddi lu weddiwu ñëpp dañu xam ne dof nga moo tax yàlla def ko guddi muy kumpa mu dugg ci yominu na bil xay bi ku ko dëggal xam yëkkati ko ku ko weddi tamit yàqu ndax weddi nga loo xamut loo xam ne ni gisoo ko te yëgoo ko moo tax yàlla ne subhaana la si asraa tudd na ma sell ak buur bi nga xam ne moo rañaane kon dafa ne saraa waaye dafa ne asraa de mbottu nag boo ko jàppee ca yéexaayu dox lu mu ne Amérique laa reeree démb ndekkee senegal bu ko weddi danga koy laaj lu la yóbbu ba pare kii nag ki ko wax ki ko yóbbu karta na man na lépp ndax na laa ala kulli shay'in kon loolu jarul weddi su ko defee nag bi abdihi la wax baatam abdu arab du ko wax lu dul ju ànd ak roox kon jëmu jaag rooxu ga yépp ñoo ànd dem rooxul bayaan mu ne abdu la waxut bi nabi ndax ubudiya moo gën a foor nubuwa ak risaala ñu ne ko lu tax mu ne ak ubudiya boo ca nexee yaay kii rootee ci taa ndaaxal mbindéef li di sotti ca teenab yàlla ba wala yaay rootee ci teenab yàlla bi ci ci teenab mbindéef fii di tokki ci ndaal yàlla la toujours foo gis Abdou rek boromam la xam ak contact moo tax ko yàlla tuddee yonent bi rek dafa nekk ci mission subhaana la si asra bi abdihi wa innahu lama qaama waaye nag nëbbi foo ko fekk jaami yàlla yi la xam ak contact mooy ki baxee ko ci teenab yàlla ba di fa rootee di sotti ci ndaal nit ñi kon nag ki xam ak yàlla contact moo ëpp doole ki xam ak jaami yàlla yi contact moo tax tamit koo gis ñu ne abdullah rek dañ koo togg diggante moom ak boromam moo dara doxatu fa waaye bu ñu nëbbiwu rek dañ koo togg mbiru xeet wa moo tax yàlla tuddee yonantu bi foofu bi abdi yi waaye tuddul ko maanaam bi nabi yi mu ne laylan waxul layla bu doon layla nakkiiraal ko guddi gi yëpp waaye dafa ne laylan muy nakkiiraal ko wane ni xaaj bu tuuti la ci guddi minal mooy wax naa la ko masjidul haram la ko wër lépp ci juróomi côté yonantu bi piqué woon ci xurum bala bokk ilal masjidul aqsa mooy jàkk ji gën a sori moo tax nga tuddee ko masjidul aqsa moo gën a sori ñel ci jàkk yile ci madinatul munawara masjidul haram masjidul rasul ah e, alladi barak naa xaw la woo yàlla dafa wër dafa barkeel la ko wër yépp ci ay meññant ci ay garab barkeel ko ci ay yonantu fa lañ doon doxee seen mission ba li ëpp ci yonent tamit foofa lañ leen denc kon place ba yàlla barkeel nag ko tabaarakallaahu lii mooy leen ñi ci rañaan gi yàlla defal yonent bi ñu ne ko nag luy sabab bi mën a li nuriyeehu min ayatina dama ko ko defee ngir baaxee ko wan ko lenn ci samay kaawteef waaye li minam tabaid la lépp xéewale yàlla benn jaamam yàlla mënu koo dékku wute naa Ibrahima min woon wa kazalika nuuri Ibrahima malakoot samawati wal ard kon nag wuteen kii nag moom laqad raa min ayaati rabbihil kubra la yàlla wax ak li nuriyuhu min ayatina al kubra kon ñoom ñaar duñ benn abdu la ko tuddee waaye tuddewul ko nabiyu abdu maqaamaam mooy jamu nabiyu maqaamaam mooy farqu kon ñoom ñaar nekkuñu benn lii lépp boo demee ca ruuxul bayaan ca xaaj ak juróomeel ba dana la ko indil ba mu leer naññi kon israawu gaa ngóog ak miraakal yu rëy yi ci yàlla defal yonantu bi